bëre jigéen yi ci Casamance yàgg doon aada bu am solo lool ci population bile gannaaw aspect culturel am bëre bi am na rôle bu am solo bu muy joué ci wàllum jàmm. te cosaan la li nga xam ne yàggoon na am la doon am ñun bañ nekkee jeune dañu doon dem euh, di bëree entre quartier parce que bu njëkk bi déggoowuñu dañu doon jël ñi dem rencontré ñeneen ñi ñu luttee euh, ça se ça ça permettre ñu doon permettre ñu jàppante ay xarit. kii rek sport la rek comme yeneen sport yi rek. sport muy defee suñu plaisir. noonu la tamit lutte bi di def suñu plaisir suñu aada moom lañu xam comme sport. Casamance nag yàgg am ay champion ci bëre jigéen yi ñenn yi jot nañu représenté Sénégal ci ay compétition yu mag depuis boobu les génération bëre jigéen yi dellu na gannaaw bu baax ci Casamance. parce que dañu gis ni euh, bu njëkk ba amoon na ay champion yu bëri fii surtout fii à amoon na ay champion euh, loolu ñooñu bu ñu demee. amatu te ñu décidé ni dañuy ñëw Jembere pour ñu Euh, la lutte féminine au niveau de Djembra Pousse pour que la petite catégorie ñoom tamit ñi xam ne la lutte féminine c'est important te am na fi ay talent il suffit juste de les encadrer mais Djembra est regorge féminine ngir suuxali bëre jigéen yi ci Diembéring ak Casamance ñoom ñoo ngi tàllal loxo ki ñu dënk wàllu sport ak waa CNG ñu jàppale leen. bëgg naa vraiment gars yi CNG ak ministre de sport bi bëgg naa def jigéen yi Diembéring yi ñu bëre comme. or ñoom hortense Diédio en tant que judoka bëre côté jigéen yi quoi. bëre jigéen yi ci Casamance doon pilier culturel bu am solo lool waaye tamit di gën a dëgëral jàmm ji ci diggante dëkk yi.